amu mbay sa diggante ak indo yi ñu gis ci euh, pour le foot yi di fecc indo yi di tëgg indo yi di indo yi di tëgg sénégalais yi di tëgg ñuy fecc ba mu am ci euh, loo xamante ni bii vraiment dafa dafa dafa dafa dafa dafa yéem gars yi daal loolu naka la demee. waaw non loolu Paris la woon quoi. ah Paris la woon waaw. Euh, ma seet yaa xam naa ne un mois passé la Paris. ok benn projet la bu ñu am ak benn groupe bu tudd Douate. ok ñoom ay Inde la ñu mais ñu ngi basé wu Paris la ñu basé wu. ok non dehors de Paris pardon. Ah, dehors de Paris donc euh, voilà seen directeur bi mu ngi tudd Rahis. ok moom waa kii la Rajasthan. ok bon moom dafa jëli des artistes inde indi leen basé leen Paris di tourner ak ñoom. ah moom moom moom moom Rajasthan la leen jëlee. waaw waaw Rajasthan moom de origine papam euh, c'est un euh, percussionniste. ok mais moom euh, comme famille géwel la. géwél la ok donc moom moo doon papam mi ngi dund ba léegi mais moom moo moo. moo jël relève bi voilà. ok léegi nag moom lay comme dafay tourner lu bari. ok day jouer ak ak ay rockeur moom day jouer partout ak ay ay ak ay artistes. ok léegi artistes yi da leen jël basé leen France. ok léegi nag de France lay tourner. ok léegi nag bon moom souvent comme ni ma la ko waxee sama jabar ko doon jël pour muy tourner muy ah. ñëw di jouer ci festival bi. ci festival bi ok après ci lañ aussi même même même histoire rek. après ci lañ décidé dañuy def euh, projet. pour boole ñaari. ñaari culture yi ok d'accord mais en enregistrement boobu moom Paris la woon. Paris la woon c' était pas du woon spectacle. kii la woon rek benn vidéo bu ñu war a bu ñu def. parce que mois de mois de septembre la ñu commencé tourner Europe. ok donc léegi euh, état norvégien aussi ñoom ñoo def subvention boobu. subvention boobu ok. donc léegi nag ñun dañoo déplacé wu spécialement fekk leen Paris. ok def ak vidéo bi vidéo promo la quoi. ok ok donc wala euh, loolu moo waraloon vidéo boobu. ok d'accord kon donc ça tardé Aris bu fekkee euh, élément bi pare na jox ma ko Sénégal yi ñu seetaan ko ñu xool ko intégral après ñu xool parce que man li ma ci gën a yëg bi ma gisee vidéo bi euh, gis naa ci poule foot buy fecc mooy ki doon tëb ci lekket bi kooku sama sama c'est du euh, du poule foot quoi mais c'est mais sama la. ci sa artiste la ok ma gis aussi tamit indu bi ndaw si xaaral Aris jox ma jox ma jox ma jox ma jox ma élément bi. <laughs> mi ngi noonu euh, mu nekk nag lu am solo mais laay man dafa am lu ma lu ma xaw a lu xaw a euh, jaaxal mais nan la euh, maanaam mélange bi. mélange. xam nga xam nga xam nga man dama xaw a dama xaw a dama dama xaw dama xaw a étonné parce que ñoom indo yi li ñuy tëgg. Uh-huh. gis nga aussi suñu xale yi. Mm-hmm. ñoom li ñu indi. waaw dañ ci adapté ko quoi. ñun dañuy adapté seen rythme. waaw. waaw mais loolu xam nga. parce que ñoom ni ñu ni ñu man li ma jaaxal mooy ni ñu ni ñu maanaam ni ñu ni ñu ni ñu synchronisé. Hmm. ak rythme indi bi. ni ñu ko synchronisé. waaw loolu aussi dañ koy sante ñun waa Sénégal. Hmm. sunu sunu sunu culture moo riche. Hmm. ba dégg-dégg bi nekk si ñun. amul culture bu ñu mënul mélangé wu. dëgg la te bu te booy seet. dëgg la ñun ñoo mujj adapté wu ci ñoom. dugg ci seen biir rythme pour mën a euh, def. Euh, waaw participer quoi. waaw euh, Sénégal nag yàlla may na leen loolu. booy mhm. seet euh, ba ci àddina bi yëpp. Sénégalais yi foo leen fekk ci àddina bi. Mhm. mun nañ jël sa culture copier ko. Euh, ba ba ba balaa mais ñun. ba mhm. tey gars yi du ñu du ñu laal suñu aada ba tey. suñu culture dëgg la ñun nag culture bi ñu yor dafa riche ba nga xam ne nii daf ñu permettre ñuy ku ñu mën a fekk sa culture mun nañ ci intégrer te du ñu am problème daal. ok donc moo waral ñuy am toujours ay facilité. di di def euh, di. di collaborer ak yeneen artistes yeneen dëkk yi. international voilà mm. mais à travers ci li ngeen di liggéey euh, keroog am na benn wax bu am solo boo ci wax. Mm. parce que dama seetlu sa biir wax heure boo waxee da nga naan euh, état norvégien ñoo lay jàppale. wala mm. comprendre nga. Mm. mais euh, fii Sénégal est-ce que gouvernement bi ñu fi nekk xam nañ laay li muy liggéey à travers national international. parce que ñu ci bëri tey jii ay xale yu bëri dañu màgg ñenn ñi xam nañ la. sa say génération am na ci ñoo xam ne dañu màggaale. Euh, dañ dañuy dégg turu laay ananas. mais nga quitté fi il y a ans nga nekk ko à l'extérieur. mais est-ce que ak ni ngay promouvoir promouvoir bi ngay def culture du Sénégal. est-ce que état Sénégal euh, euh, ñu ngi lay jàppale wala daal. bon côté boobu bon booy seet yaakaar naa ne ñun artistes sénégalais yëpp ñu ngi koy jooy. ba léegi état état sénégalais bon man man gisuma benn soutien. bon sama événement bi passé nag am na benn soutien bu euh, benn chèque bu ñu ma jàppale. ok par rapport ak man booy seet projet bi def naa ci presque vingt millions. ci promo bi ak lépp rek 20 millions. waaw parce que parce que man damay dégg sa biir wax da nga naan toujours da nga naan sama jabar sama jabar mooy financé sama jabar mooy def nangam. donc nag ma foog ni nag bon état Sénégal am na lu war dañ cee mën a am lu ñu apporté. non malheureusement vraiment c' est dommage. Okay. bon aussi tamit dama ah, vers tamit aussi no voilà non bon boo déggee ma ne sama jàpp parce que moom mooy mooy mooy bind subvention yi. am na ci ay yoo xam ne moom mooy jël xaalis euh, dugal ko ci. mais am na si yoo xam ne day bind euh, état Norvège. pour ñu subventionner yenn yi. des fois UNESCO des fois UNICEF kii euh, ki nu mu tudd Union Europe. comprendre nga. donc euh, mais yu ci bari. du xaar euh, yenn subventions yi. moom da koy def pour Lines of Africa pour ñu am ay ouverture ok parce que léegi àddina bi foog nga def ay collaboration ay collaboration pour sa pour gën a pour jéggi yeneen. yeneen frontières donc booy set euh, comme ku mel ni Youssou Ndour booy seet boo gisee tey ñu gën xam ci le plan international. xam nga ay déew yu mu def ak ay Néné Chéri la ay press printing voilà yooyu nag ñun nag oh. ci ci ci chemin lañ nekk. ok moo waral suñu collaboration yi pour yeneen état yi tamit gis. li ñu def quoi liggéey. voilà pour aussi ñu profité jàllale si suñu culture aussi tamit quoi. ok ok mm, aussi ma gis sa diggante artistes yi mu am benn affinité bu am seen biir. Mm-hmm. Euh, jàmm ji xam nga kafoore mais li bëggoon xam mooy est-ce ñoom ñëpp. maanaam ku ci nekk dafa am salaire danga koy fay. waaw non euh, du doo du nekkul salaire quoi mais chaque euh, prestation. ok chaque spectacle la ñu leen di fay spectacle. ok mais bu fekkee ne euh, te xam nga bo mën naa ne gëjoon naa Sénégal 13 ans. donc dama nekk di former lii presque mën naa ne lu bees luy doog ko pare. ok da nga def beneen groupe bu bees. voilà donc ñii ay nouveau lañ ñoom ñëpp. boo seet ay xale lañu. mais maa ngi préparé euh, ay employés. ok parce que ñun dañoo xaw bari. ok nga suñu turam on était quarante cinq. quarante cinq ok waaw donc les quarante cinq nag maa ngi am benn nombre boo xam ne. ñoom laay génneel ñoom laa préparé pour def leen ay salariés. ok ok noonu laay bu nekk international euh, jël nag flambeau drapeau sénégalais bu ko ëpp partout dans le monde donc nag euh, muy koo xamante kii wax dëgg yàlla ñu bëri tey ji Sénégal bu ñu leen xamee à travers international moom ci bokk parce que yàgg na def na 13 ans à l'étranger donc nag yor drapeau Sénégal mosul bàyyi benn yoon tubarkalla muy ndaanaan bu mag dañuy ñëw ci deuxième élément bi euh, Aris jox ma deuxième élément bi ci topp. troisième élément bi nga may jox euh, troisième jox ma jox ma troisième élément bi jox ma troisième bi jox ma jox ma troisième bi waa ñu ñëw ñu ñëw ci élément boobu euh, donc nag euh, comme ni ñu ko waxee léegi rek donc nag mu nekk artiste boo xam ne tubaarkàlla dafay jël ay artistes yu bëri fii di leen yóbbu. Thank you. mi ngi noonu mu nekkoon nag euh, lay ñoo ko gisandoo lii nekkoon euh, benn euh, prestation bu amul Sorano. Mm-hmm. ñu gis nag nga indi woon fi waa Indian Taal. Mm-hmm. Taal India mm-hmm. mu nekkoon nag spectacle boo am ci lu gis nañ fi léegi aussi tamit xale yi ni ñu duggee encore ci rythmiquement. ci rythme tempo indi bi ñu def. waaw fii. tabla. gis nga ni waa ji kii donc. Euh, lan lan lan lan lan lan nga wax ci loolu. mooy li ma la waxoon ci début bi quoi ñun euh, déjà ñi seddee euh, ay ci ay doomu dañ judd ci culture quoi. xam nga xam nga man ñu ma sélectionné ñëpp presque seddee ñoom ñëpp seen papa yi ci aar lañ nekkoon. ñoom ñu ñëw doon ko nag quoi. donc. comme li ma la waxoon rek commencement bi nee naa la culture Sénégal dafa yaatu ba nga xam ne nii boo ko xasee ba maîtriser rek. dëgg la mën nga ànd ak ku nekk. dëgg la donc euh, moo tax amuñu benn problème pour jouer euh, ak n'importe qui. dëgg la waaw donc daal fii euh, lii ni ko commencé woon def nañ ko depuis Inde lañ ko commencé def nañu tourné nañ Inde deux fois. dëgg la. donc programme bi la ñu présenté donc xam naa amuñu chance sax wane lépp. dëgg la mais mooy partie bi nga xam ne rek bon moom geen choisir yéen. mais programme bi xam nga yónnee naa la lu ëpp lii. dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, ci côté boobu daal ñun mm-hmm. amuñu benn problème pour intégrer wu ak n'importe qui ci ci wàllu aar. ok donc am na yeneen projet yu war a ñëw. ñu ngi war a jouer ak benn groupe bu tudd euh, bu bu jógee Hongrie. bu tudd. Euh, foofa dance donc xam naa bientôt dinañ tourner ak ñoom Sénégal donc bari na ay dëkk yu ñu collaborer quoi même ay break danseur ak tout ça donc loolu lañ nekk actuellement di jaxasoo yeneen culture yi nekk ci àddina bi uh-huh. ci yeneen dëkk européens yi ak yeneen dëkk inde yi pour uh-huh. mën vraiment fësal aussi culture Sénégal. parce que culture Sénégal dafa uh-huh. desee jàll. dafa uh-huh. desee egg ci yenn dëkk yi. ok léegi nag pour ñu jàllale ko. Uh-huh. dañuy profité di boole ak yeneen fusion ak yeneen artistes yi. pour ñoom tamit ñu mën ko génne quoi. mais est ce que tamit est ce que yéen ngi prévoir que ngeen dem ci dend Afrique gi Afrique gi lu ci mel ni ay ay Côte d'Ivoire Gabon Mali euh, Maroc yu demee noonu. est ce que est ce que yéen ngi. bon xëy na bu ñu bon xam ñu ak ivoiriens yi ak euh, yeneen dëkk africains yi presque amul trop différence. xëy na benn côté am na tuuti mais pas bon. couleur bi presque dafa xaw a ndroo mais ant bu fekkee ne arabe comme dëkk arabe yi donc di nga gis différence bi quoi donc euh, pour le moment amaguñ fa benn projet mais suñu projet actuellement c'est euh, à part inde yi européens yi la donc ñu nag européens yi actuellement yoo xam ne ay ay Union Europe ma ko financé comme ay Hongrie ay Bulgarie ak euh, Norvège ak France aussi quoi. yéen ngi waajal benn tournée bu mag en Inde. Mhm. ci mois de août bi ñu ñu dëgmal incha allah. Mhm. buñ ci yàlla yóbbu jàmm. Mhm. nan ngeen koy waajale nan ngeen koy préparer euh, spectacle la boo xam ne peut-être. Euh, y aura beaucoup de monde. ay ay ay ay ay acteurs ñoo fay dajee. y euh, dina am les réalisateurs. donc nan ngay préparer. parce que dem nga fa demaat fa. mais nan ngay nan ngay waajalee pour ak lan nga sa répertoire lan nga fay waaj a yóbbu. non bon mën naa ne du waajal quoi xëy na dañuy yóbbaat beneen programme bu bees. parce que ñun xam nañ ñu donc euh, te am nañ fa public parce que bii mooy doon suñ troisième fois. ok mais yi ñu ci dem yëpp nag bon. Euh, ay demu presque mën naa ne demu privé la mais bii pas état Inde nag. ñoo ñu invité donc euh, gis nañu bi ñu fi ñëwee sax seen ambassadeur bi am na ay invitation yu ñuy defal yoo xam ne ay invitation privée la. donc mais bii pas état Inde ñoo ñu invité xëy ne nag dinañ daje bii pas ak yeneen autorités yoo xam ne ni nañu leen woon. mais donc euh, ñun defar nañ ay programmes yu bees yu ñëw yóbbu foofu. ok mais bu ñu déggee foofu dañuy defaat ay quelques répétitions pour fusionner programme bi pour mën ko présenter. ok voilà ok. Euh, lay dañu seetlu sa biir wax aussi tamit heure boo waxee da nga naan sama jabar. Mhm. Euh, dans tout ça. Mhm. sa jabar lan la ci. moom mooy moteur bi ah toujours dama naan ko moom mooy moteur bi mu ne ma man maay moteur bi parce que. xam nga nit ku nekk des fois di nga toll moment boo xam ne nii bu la joxul loxo rek doo ci génn. ok donc bëgguma sori ci côté boobu parce que xam nga rek. dëgg la waaw dëgg la. ayca mu ngi noonu euh, Aris sans tarder vite rek élément bu ci topp rek jox ma ci tuuti rek après ñu dagg ñu dugg daal di tàggoo. ayca ah, ñu ñëw ci beneen élément Here is beautiful dancers from Africa. Ah, that's nice, And here is also a Rajasthani dancer, Manju, who from Rajasthan. So we would love to play for you. ñoo ko gisandoo euh, groupe bi ñan lañu. ñii ñooy duwaat. ok waa Rajasthan lañ duwaat ñoom ñi ngi basé wu France lañ ba lañ basé wu. ok ah France lañ basé wu. waaw waaw waaw ok. Mm-hmm. donc li projet la boo xam ne nii projet bu war a dem euh, d'ici deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. mais mois de septembre la ñu commencé en Norvège. ak euh, Suède waaye presque promoteur européen yëpp presque ñoom ñi ngi ko ñi ngi commencé di ko jënd quoi. di ko jënd waaw waaw. ok lii nag moo waroon ñu defoon investissement bi parce que. Uh-huh. mënuloo présenter benn culture di ko jaay te amul. Mm, euh, promo market dëgg la amul promo dëgg la voilà donc nag ñun ñun dama mujj déplacer artistes yi ñu jóge ba Sénégal. ñoo fekk leen France fekk leen France parce que fa lañ doon defee vidéo yeeg presque lépp fa lañ ko si français ñoom ñoo doon def. Euh, ñoo def marketing bi mais ñun. comme ñu ñoo leen gën a ñu on était presque sept artistes. Euh, huit donc ñoom ils sont nombreux ñun dañoo mujj jóge fii Sénégal. fekk leen fekk leen def vidéo bi. def photo shooting yi après tourner Sénégal. ok voilà mais bokkul ak waa Taal India waa Taal India moom. Euh, Inde lañ jóge direct ñëw fii quoi. ok mhm. donc kon sa première sortie donc ñu ngi koy xaar kon maanaam mois d'août ne mooy. waaw août ñu ngi dem ak waa Tal India Inde. Inde mais mois de septembre c'est en Norvège. en Norvège quoi waaw Norvège Suède Danemark. Suède ok mais aussi tamit eh, su ma jubalee yéen a ngi fàttali ñu ngi yéen dem eh, eh, ci Qatar bi. waaw waaw bi ñu ngi dem mois novembre. ñu ngi euh, ñooy def euh, prestation. prestation yi am et puis dañ aussi euh, presque ñun Sénégal sax moo ñu gën a yóbbu. ok ñun suñu objectif yëpp mooy demoon supporter. les Lions dem supporter Lions yi Sénégal. far yàlla def waa FIFA daat ñuy. contrat daal pour ñu def animation bi quoi. kon daal animation bi am fi nga xam ne moom mooy Qatar. Mm-hmm. ci coupe du monde bi. Mm-hmm. donc yéen yor animation bi yëpp yaa ñoo parce que ñoo presque bu ñuy dem à vingt quatre artistes xam nga parce que ñoom dañu décider waa FIFA ñu ne dañuy diviser en trois parties pour voilà xam nga xam nga euh, coupe du monde dafa rëy quoi. la coupe dëgg la pour ñu couvrir loolu yëpp dina métti quoi. mais mhm. yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na. ayca mais bi ñu lay kontaan ci dalal la fii ci 2 ci plateau Allô Bombay. ñu mhm. am mbégte saa yu ñu dal saa yu ñu la vraiment dañuy kontaan. ñuy am mbégte nag vraiment di la ñaanal yàlla rek euh, yàlla yóbbu lañ ci jàmm. amiin amiin waaw ngeen euh, vraiment daal kontaan nañu. merci man tamit maa ngi sama bi sama rêve bi gën a mag mooy <laughs> euh, suñu tournée bii nga ànd ak ñun. incha allah nga fekk <laughs> parce man euh, dama dama choqué wu quoi jour ma la eh. njëkkee gis ngay wax ak waa Taal India. di wut làkk Inde affaire boobu ñoom ba tey dañu ma koy laaj quoi. donc te xam naa ne yow bis bu ñu ànd ak yow vraiment dina dina dina dina impressionné euh, euh, waa Inde trop sax. ok léegi léegi man xam nga la moo ma gën a loon. waaw man bëggoon naa. ñu ñu loolu xaw ma noo koy noo koy toog programme mm-hmm. mais il faut ñu jël fi benn benn groupe. Mm-hmm. yóbbaale leen pour ñoom ñu. xam parce que suñu événement bi amoon na ay danseuses. vraiment man tamit daf ma. ñoom sax daf leen jaaxal. da leen jaaxal. parce que loolu ñoom mosuñu ko imaginer. waaw que am na ay ay artistes sénégalais. sénégalais yi fecc ci indo. ba pare non affaire ñoom romb nañu parce que dañ dañ jël lépp lañ jël ci ñoom. dañ jël seen habillement seen lépp. mais ñoom nee nañ ñoom. Uh-huh. dem nañ bopp est-ce que ñoom est que di. te ay sénégalais lañu ay léegi nag xam nga tey jii boo fi defee sélection benn groupe. Mm-hmm. nga yóbbu leen imaginer ñu toog Bombay ñëpp toog. loolu moom mooy loolu. non lool lool loolu bàyyi naa loolu nga wax ni sax man déjà idée la ci man mais dañ bëgg état Sénégal ñu dugal seen loxo waaw mais loolu loolu loolu waaw beneen affaire la waaw kay loolu man bàyyi naa image Sénégal la ñuy jaay te loolu boo ko defee image Sénégal ngay ngay ngay a jaay vraiment parce que indi voilà gis indi ñaata at ñi ngi consommer ñi ngi leen di consommer waaw Inde yi presque mën naa ne <laughs> li li ñu jël fii ci alal ci ci. amul Sénégal bu ne seet kon il est nag état Sénégal aussi dugal seen loxo ci culture bi fii. pour jeunes mën a am ouverture liggéey pour mën a jëriñ Sénégal parce que Sénégalais bu am rek day ñëw fii Sénégal wallaay jërëjëf grand bi jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf ayca maa ngi nuyu nag sama xarit bi Modou Fleur eh, maa ngi koy nuyu nag bu baax a baax Ousmane Djigo Ousmane mu salmi la Modou bu baax di Abdou ah di nuyu nag eh, eh, eh, waa kër gi ah ñoom Daxaan Galas yéen ñëpp fàllu mu ndaw maa ngi leen di kontaane baax a baax mais Rafi maa ngi leen di nuyu nag bu baax a baax a baax a baax Maguette ah ah tubaarkàlla Maguette maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax sama chéri maa ngi lay nuyu chéri monsieur le maire maa ngi lay kontaane bu baax a baax donc nag nen na jëlal nuyoo bi teg naa nuyoo bi sa loxo nga jox ko monsieur le maire ah, jox joxal ma ko ñëpp tubaarkàlla foofu maa ngi leen di bu baax a baax acca eh, di nuyu nag Sadio Ndiaye bala may dem dimanche incha allah ci rajo bi Silla Fadiga la ñu invité ci rajo bi Africa 7 Sada Ndiaye Silla Fadiga la ñu invité incha allah na ko indofil yëpp pare ci kàttanu yàlla incha allah Silla Fadiga mooy suñu invité dimanche ci rajo bi Africa 7 ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax incha allah ayca yàlla na yàlla defal jàmm ci barke Serigne Babacar Pisaloy Vienne a baax ayca ba àllarba ak jàmm incha allah ayca bàyyi bàyyi